abo dem nañu fekk këram ay mbir ya nga xamante ne mbir ya dugal na ko man damaa xamul onze jours avant présidentielle naka la ci abo Mbàkke fan la abo Mbàkke war a jaar abo Silla non te Silla ja sax parce que démb maa ngi dégg tey suba kon maa ngi dégg kii di euh, Babacar Keolo nee na 2013 Abo Mbacke dañ ko jàpp aboo Sylla dañ ko jàppoon. ba ñu ko jàppee ñu dem. ci jugement ba yaayu aboo ñëw. mais aboo Mbacke la déclaré woon. ba yaayam ñëwee ne am naa benn terrain xaw ma bu ne fan. 25 million lañ doon toppee aboo ca 2013. am naa benn terrain boo xamante ne 4 millions lay jar mun naa koo jaay. jox leen ko pour ngeen bàyyi Abo Sylla. léegi ba muy wax ak avocat keneen avocat wu plaignant bi. Mhm. ci la ko ne woon kat mooy Abo Sylla mu nekk ki ngeen di jugé te moom Abo Mbàkke la leen jugé la leen mhm. déclaré woon. Mhm. sa la yaay ji dem ne euh, sa la avocat plaignant bi dem ne kii juge bi kii santul Mbàkke Sylla la sant foofu lañ soog a xamee ne Sylla la sant. léegi nag 2013. tombé woon na am na keneen ku ñu jàppoon. ba ba mu demee kaso. moom ak kooku muy journaliste boobu ñuy tudd. paraît foofu la ñu dajee ci ay kàddu Babacar Touré Kewoulo. Uh-huh. paraît foofu la ñu dajee foofu la ñu xamante xamante nañ depuis 2013 ba ba yegg si fii nii. Uh-huh. waaw ci ci ci affaire affaire kaawam moom. xam nga hmm, kaa boobu noonu. mbirum dóor mi bi. no abo mbirum dóor mi waaye journaliste bu mbirum leneen la woon. Hmm, hmm. waaw mooy jamono de toute façon ñoom xamante nan ñoom foofu lañ xamante selon Babacar Touré. waaw nee na jamono jooju lañ soog xamante. mais léegi abo man abo démb maa ngi gis mu dugal ay vidéo vidéo yu bëri yoo xamante ne mu ngi ciy def ay kii di conseil jeunesse bi. nee na moom sax am na ñaar ñoo xamante ne moom mosu leen jox cër mooy boroom xaalis ak xaw ma ak borom lan xaw ma politicien ak borom xaalis daal di di conseiller jeunes yeeg yooyu noonu. non affaire bi affaire bi extraordinaire léegi Babacar tam nee na am na benn mbir boo xamante ne ñoom. fas mhm. yéene nañ ko def selon Babacar Touré encore. Mhm. nee na film bi gelongaal tourné ji. Mhm. nee na moom li mu xamee abo euh, nekkul Pierre Goudiaby Atepa moo ko contacté. moom bàcc bu gelongaal mooy ki gelongaal ki rasta noonu ki génn àdduna fan yi rek mhm. waaw mu ne kooku moo ko contacté bi mu ko mhm. contacté wax ko problème bi mhm. léegi mu ne ñoom nag seen ligne de defence liñ nar a def mooy film boobu noonu dañuy wax ne dañ doon tourner film mais pas dañ ko doon utiliser pour propagande wala pour jaay l'image de Abo mais film lañ doon tourner loolu daal la ñu nar a def ñoom à ces jours à venir selon Babacar Touré encore. Mm-hmm. nee na dañoo nar a génn ne film boobu noonu c'est absolument rien loo xamante ne arnaque la woon wala loolu. Mm-hmm. mais film comme un café avec lañ nekkoon di tourner. ok waaw parce boo xoolee image yi sax daanaka xaw na niroo euh, euh, image yi am xam nga nuru na un café mmh. avec. très bien nuru na tamit présentation livre Cheikh Yérim bi mmh, mmh. niroo na ko waaw Sall xaw ma face à l'histoire bi ñu koy bi ñu koy présent ba mu toog këram noonu def tome toog ci géej gi affaire yooyu noonu. même image yi la mais c'est du gelongaal te xam nga ne gelongaal li ñuy def euh, dañuy gis seen touche ci loolu noonu. mais am na tamit li bees ci mooy. passeport diplomatique bi nga xamante ne Abo am na ko. à mhm. onze des élections présidentielles. Mhm. kan moo ko jox passeport bi naka la def ba am ko mais ñun suñu passeport diplomatique tamit. Mhm. ça yaa ma gën a xam. waaw passeport diplomatique c' était pas pour les diplomates dëgg dëgg dëgg mais vraiment c' était pour ñi nga xamante ne. jege nañu nguur wala am nañu rapport ak nguur wala bokk nañu ci famille yoo xamante ne nee nañu peut-être c'est des familles influentes nekk ci biir réew mi yow da ngay gis peut-être benn nit boo xamante ne mu ngi ci showbiz bi. Mhm. wala mu ngi ci nangam ak nangam yoo xamante ne je stigmatise personne. Mhm. mu yor benn passeport diplomatique te mu leer la ne ne passeport bi amalut njariñu réew mi fa muy dem. parce que la nga la ngay dem say mbiru bopp nga fay doxi. Mhm. say diilu bopp nga fay dem mais amul benn jéego boo xamante ne passeport boobu dina tax nga représenter réew mi ci benn mbir wala benn lang wala benn cérémonie absolument rien du tout. c'est juste des magouilles yoo xamante ne dañ ko doon utiliser. pour jox nit ñi ay passeport diplomatique comme on a avec euh, ce mhm. pour ñuy dem di tukkeek yooyu noonu. dem tamit biir këram fekk fa loo xamante ne day appesantir li nga xamante ne mooy film moom bi ñu doon tourné. Mhm. parce que dans le film dañ ko doon présenté comme représentant wu benn Salman. Mhm. fii ci biir réew mi ba ñu ñëw ñu ne Pierre Goudiaby bi dañuy tabaxal benn Salman benn. Euh, palais palais fii nii. parce que ñoom it am nañ benn palais Maroc am nañu yooyu noonu. mais mooy escroquerie bi ñuy wax rek. Mhm. parce que à chaque fois nit ñi il joue sur euh, sensibilité nit ñi. Mhm. parce que Sénégal sol yére bu rafet. Sénégal sol oto bu rafet sol nangam ak nangam. Mhm. moom moom mooy influer nit ñi l'habit fait le moine fii. boo soloo boo ñëwee taxaw wax lu le yaa ma gën a xam. diggante Matar Diop suba teel tamit ak kii di Abo. Babacar Touré dellu si na ci. parce que Babacar Touré nee na Sidi Diop ba ñu ko jàppee. Matar Diop suba teel ba muy dem jëli ji di Diop oto aboo la yor mhm. oto aboo Mbàkke mii la dawaloon mhm. jour ba muy dem jëli ji suba di Diop dem jëli ji Sidi Diop mhm. kon ñoom xamante nañu xamante nañu waaw kon daal problème ba daal jeexagul eh. espérons que ne dinañu xam fan la wan di mujjee ki gëtëm waaye waaye boobu la problème jeexagut ah, jeexagul moom mu ngi noonu du ñàkk rek comme ni ko Vito junjee lépp lu si beesaat rek di ngeen ko amandé sur 313 digital Djibel Niass maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. yow aussi euh, nga nekk euh, frère si 313 euh, digital alors Momo dañuy ñëw ci beneen actualité muy beneen plainte boo xam ne ñu ngi koy tudd jëmale ko rek ci ki nga xam ni moo nekkoon <laughs> njiitum réew mi muy Macky Sall bii nekk bii nag le collectif touche pas à ma sœur ñoo daal di porter plainte ki nga xam ne nag moo di Macky Sall fële ca CPI ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci journal bi di L'As quotidien ñoom nag ñu ngi xamal ni dalee ko 2021 jàppale li nga xam ne nag moo di 2022 2023 lu tolloog 73 euh, euh, euh, jigéen jot na leen daal di violé ñenn ñi nu nu nu nu nu violé leen ci li nga xam ne nag moo ci ay bâtiment yu yu pareegul ñenn ñi nu violé leen ci li nga xam ne nag moo di ci àll bi ñenn ñi ci ay kër te boobaak léegi nguur gu fi nekkoon daanaka yeewu si yàbbi mu mel ni rek moom Macky Sall daf doon gëmm ci cas de yi nga xam ne nag moom moo fi daan am ba tey ci ki nga xam ne nag moo di Ismaïla Kambi nekk président boobule association touche pas à jot na noo xamal ni carrément nguur gu fi nekkoon danoo déclaré woon peut-être insuffisant pour nu mën a euh, yë yàbbi ci yoole mbir loole moo tax ñu yóbbu mbir mi ca kanamu euh, CPI mu nekk beneen plainte euh, ginnaaw Juan Branco bu fay xaarandi ki nga xam ne nag moo di Macky Sall ana tey jii moom moo naan nga mën jàngatee plant bi nga xam ni collectif bii di touche pas à ma sœur ñoom ñoo ko daal di dugal fële ca CPI contre njiitum réew mi fi nekkoon. man kat damaa comprendre man lu ñuy wax di nga comprendre de wallaay di nga comp. sérieux comprendre ma ah di nga comp de. Ah. Ah, kon comprendre nga. ah dégg comprendre ma. di comprendre moom. waaw ah, mais dafa am cas viole yu am au Sénégal yoo xam ne yoon def si lim ci war a def wala. justice 73 73 euh, cas la wax. ndax justice def na ci lim ci war a def. wala def ci. waaw ñoom neen defuñu si liggéey. ah. waaw parce que man de man de man de man de dalal naa fi nit mu am lu mu ci lu mu ci lu mu ci wax. kooku lu la wax. ci ay cas de mhm. yoo xam ne am na euh, ay jegeñaale c'est-à-dire dafa dafa am ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite woon réew mi seen ay mhm. jege ñaale mhm. yoo xamante ne si laa. dañ doon organiser ay ay ay xeetu soire walla rencontre. ci ay ci ay appartement si laa. ki ma wax. ni ma euh, buñ leen musaana buñ leen musaana invité. Uh-huh. maanaam ñooñu ay jege lañ ñenn ci réew mi lañu. nee na bu ñu leen musaana invité dañ leen invité ne leen kat feet la ñëw leen am na ñoo xam dañoo të. mën a uh-huh. taxawaalu ñoom it kenn raw leen waaye nee bu ñu bu ñu ñëwaan ba ci lieu yi. dañuy uh-huh. ñëw mu ne gars yi dañ naan fermer à ne leen soit da ngeen kii wala doo leen ñibbi. donc waaw ci loolu yaa ngi fàttaliku loolu. donc loolu. bu fekkee ne am na yu yu yu mel noonu je sais pas peut am na sax ñoo xam ne tey ñu ngi dund parce que kooku dafa ne am na ñoo xam ne dañ leen doon wax dem leen ngeen porter plainte mais duñ ñemee porter plainte. Mhm. parce ki la koy def li muy sukkandiku mooy man euh, dafa am lu ma lu ma lu ma occupé ci ci réew mi wala diw sama frère la wala diw man réew mi soo ma fi toppee ci yoon tam kenn mënul ci man dara. Mhm. c'est-à-dire cette impunité boobu noonu nit ñi doon am bay sàcc